ñu nekk yéen ba tey ci tableau yi yii moom la ñuy wax les panneaux d'obligation maanaam tableau yi nga xam ne dafa leen di forcer bëgg ak bañ kii daf la forcer nga jàdd sa càmmoñ laata nga agsi si tableau bi kon da ngay seen tableau bi nekk ci intersection ñu ne la jàddal sa càmmoñ amuloo choix da ngay jàdd sa càmmoñ fii ñu ne la dañ la forcer nga jàdd sa ndeyjoor avant ngay àgg ci tableau bi obligation de tourner à droite avant le panneau kon yaa ngi ko seen nekk ci intersection bi jëlal droite fii ñu ne obligation de contourner l'obstacle par la droite lii ne sa kanam nii wëree ko sa droite kon maanaam yoonu droite bi moom ngay mën a jël pour mën a dem donc loolu lay signifier kii ñu ne obligation de contourner l'obstacle par la gauche lii ne sa kanam waree ko sa càmmoñ kon yoonu gauche bi moom ngeen di jël pour mën a woyal seen yoon fii ñu ne obligation de continuer tout droit à la prochaine intersection ca angle ba forcé nañ la nga jubal kon doo jàdd fenn amuloo choix te ñëpp lañ ko forcé fii ñu ne obligation de tourner à gauche à la prochaine intersection ca kanam ca angle ba forcé nañu la nga jàddee sa càmmoñ kon amoo choix da jàdd ak koo mën a doon ak loo mën a yor fii ñu ne obligation de tourner à droite à la prochaine intersection ca angle ba forcé nañu leen ngeen jàdd seen ndeyjoor keneen da ngeen di jàdd fii nag am ngeen choix dañu obligation de tourner à droite ou à gauche à la prochaine intersection jàdd leen seen ndeyjoor wala seeni càmmoñ ca angle ba kon jubal lañu tere fii ñu ne obligation du continuer de tourner à droite forcé nañu leen ca angle ngeen tàllal wala ngeen jël seen ndeyjoor waaye mënu leen jël seen càmmoñ ak ah, fii ñu ne obligation de continuer tout droit ou de tourner à gauche ca angle ba forcé nañu leen ngeen jubal wala ngeen jàdd seen càmmoñ amu leen choix donc li ñu fa tere mooy euh, ku jàdd ndeyjooram kon ñu yem fii dikkaat ak yéen yeneeni tablo